lu tax ma formuler euh, euh, ne euh, né la def parce que xex vous m'avez commencé man depuis 2007 dugg ci politique euh, nangu wax nangu ma ci ay gouvernement parce que une orientation économique yu ci bari sax maa ko bind muy Idriss Seck muy Abdoulaye Wade entre ñun mais euh, euh, man déggin bu ma ci am ñom amuñu déggin boobu ce qui fait que euh, bokkuma ci seen gouvernement mais point essentiel bo xamne man jappo naa ne war nañ ko commencer au Sénégal moy le président ñaari mandat la war a sama expérience africaine motax tax may insister ci euh bu ko Nigéria appliqué ak Buhari suñu xel gën dal parce que Boari, euh, Nigérian, dans dans daan wax à l'époque mo gën ci politiciens nigérians yi ñoo dañ ko doon wax mais ñoom yàkkamtuñu mu jël réew parce que dafa jub doon nañ ko doon jëwé pour te dire mais bu ñu demee ba Boko Haram jaaxal leen yooyu finalement moom nañu mujjee woo mu jël euh, dëkk donc tay am nañu ouverture pour mën discuter sur l'institution président de la République parce que affaire u ñaari mandat yi c'est réglé donc léegi am nañu ay opportunités

ah njort naa ne peut-être né mëna am discussion yu mel non et que réforme yi ñu mën commencer les appliquer 2024 lool ngay wax non man lool gëm naa ko euh, ñu ci ciy euh, euh di ci waxtaan ak ñëpp ñaan leen wax nak légui yeen da ngeen bëgg nekk président de la république c'est bien mais est-ce que yow pare nga légui ñu diminuer say pouvoirs parce que gis ngeen ni yeen yeen a Macky Sall lu ko neex lay def c'est un dictateur et cetera da ngeen bëgg yeen tamit nekk un dictateur boo continuer comme ça donc yaakaar naa ne mën nañu ci am consensus. c'est ça waaw man loolu ngay wax noonu suñu ci amee consensus vraiment dëkk bi dina avancer. en tout cas maa ngi ciy liggéey di ci waxtaan ak ñëpp man awma problème personnel avec des hommes politiques au Sénégal ku ci nekk mën naa la woo wax ak yow. pourquoi parce que mosuma ci saaga kenn mosuma wax lu ñaaw lu saafaan ci parce que jàpp naa ne du politique dinaa la ñuy d'accord ak yow expliquer lu tax d'accord ak yow.

donc war nañ delloo suñu xel ñun ñëpp xam ne politique dañoo war waxtaanee réew mi ñu bëgg réew mi nag mën nañoo toog d'accord ci lu ñu war a def consensus loolu moom vraiment euh, euh, euh, mën naa la ko assurer en tout cas de notre am amuñu ci benn problème amuñu ci benn problème jërëjëf.